Euh, présent ce matin euh, à l'ouverture de cet atelier au nom du docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tel que vous le constatez dans l'énoncé même de l'atelier, euh, le concept de règlement sanitaire international renvoie à ce dispositif euh, coordonné par l'Organisation mondiale de la santé euh, pour euh, travailler dans le sens de la mise en place de dispositifs dynamiques euh, assurant euh, ce que nous appelons la sécurité sanitaire mondiale. Mais parlant d'abord de l'Organisation mondiale de la santé, dont le Sénégal est membre à part entière, membre très actif, naturellement, Euh, le Sénégal souscrit euh, dans sa politique nationale de développement à ce qui fait de lui un pays grand contributeur pour la sécurité sanitaire euh, mondiale. Et cette sécurité sanitaire, c'est d'abord que le Sénégal assure à sa population un bon état de santé dans un environnement sécur de santé. c'est pourquoi, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Euh, le Sénégal donc, a mis en place ce qu'on appelle un système national de santé. Si ce système national de santé s'occupe en premier de la population sénégalaise et de toute personne euh, au Sénégal, ce système travaille également pour que la contribution du Sénégal pour une bonne santé euh, en Afrique de l'Ouest, une bonne santé en Afrique, une bonne santé dans le monde, donc le système de santé sénégalais euh, œuvre porte en partie donc cette contribution euh, pour la sécurité sanitaire mondiale. Et enfin, l'outil qui nous permet de le faire s'appelle Règlement sanitaire international. Quand nous parlons de règlement, cela renvoie à des dispositions, cela renvoie à des articles, cela euh, renvoie à une façon de faire pour que devant toute situation, un, que les acteurs concernés puissent être identifiés, deux, que chaque acteur connaissent ses rôles et ses responsabilités. Et dans la mise en œuvre euh, du règlement sanitaire international, ici au Sénégal, nous sommes à la phase où nous devons mesurer nos performances. Où est-ce que se trouvent euh, les bonnes pratiques du Sénégal en matière euh, de mise en œuvre du règlement sanitaire international Quels sont les gaps à combler pour que euh, les performances globales puissent être euh, élevées euh, au plus haut niveau. Pour le faire de façon objective, ou en tout cas pour le faire de la façon la plus objective, euh, nous avons procédé de la suite sur instruction de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Premièrement, le règlement sanitaire international appelle à la mobilisation de tous les secteurs du gouvernement autour du système national de la santé coordonné par le ministère de la Santé et sociale. C'est pourquoi dans cet atelier, vous trouvez naturellement donc les équipes du ministère de la Santé, mais vous trouvez également les équipes de plusieurs départements ministériels. Je peux citer quelques-uns à titre d'exemple. Vous trouverez le ministère de l'élevage, parce que la santé de l'animal influe sur la santé euh, de l'être humain. Vous trouverez le ministère de l'environnement, parce que la qualité de notre environnement impacte sur la qualité de notre, sentiment, euh, de notre santé. Vous trouverez le ministère de le ministère euh, de l'eau, et de l'assainissement, vous trouverez le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, vous trouverez le ministère des Finances et du Budget. En réalité, le ministère du Commerce, en réalité, vous trouvez tous les ministères euh, donc, de notre gouvernement autour du ministère de la Santé euh, pour que cette coordination puisse aller vers la performance. Et la euh, garantie euh, d'objectivité est basée sur l'utilisation d'un outil qui a été élaboré par les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, donc dont le Sénégal, qui a été validé au niveau international, qui a été testé. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'en le remplissant de façon objective, nous aurons la vraie situation du Sénégal en termes de capacité à mettre en œuvre le règlement sanitaire international euh, avec performance, avec efficacité, avec impact positif sur la santé. Mais nous saurons également à quel niveau le Sénégal est en train de contribuer dans la sécurité sanitaire mondiale. Euh, le règlement sanitaire international a été mis en place depuis 1951 et a subi différentes euh, revues, euh, différents amendements. D'ailleurs, en ce lundi 5 euh, février 2024, euh, s'ouvre à Genève, euh, au niveau donc du siège de l'Organisation mondiale de la santé, un important atelier pour faire la revue justement de toutes les propositions d'amendement qui ont été euh, par différents pays du monde pour que le règlement sanitaire international s'adapte aussi à notre environnement euh, changeant, surtout au lendemain de la euh, euh, l'urgence de santé publique de portée internationale euh, que constitue, que constitue la pandémie Covid-19. Le Sénégal est représenté à cette de Genève pendant toute la semaine pour dire que ce n'est pas la Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur la version 2005 du règlement sanitaire international. Les amendements en cours sûrement euh, pourraient produire soit une version totalement revue, soit une version partiellement revue, mais l'un dans l'autre, les fondamentaux ne changent pas. La bonne santé de la population, la bonne santé aux frontières, la bonne santé dans les politiques internationales euh, euh de gouvernement et dans les politiques euh, internationales de coopération, c'est ça, le, ce les fondamentaux. Donc, Euh, du règlement sanitaire international. Et l'outil que nous utilisons aujourd'hui, euh, comme je le disais, nous permettra de savoir où est-ce que nous en sommes en Exactement. Alors, euh, nous sommes dans la troisième version euh, du euh, règlement sanitaire euh, international. Donc, je peux dire que, au même depuis 2005, nous évaluons notre, nos performances de façon dynamique à travers ce tout également changeant. Euh, di leen gërëm di leen sant teewal fii docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye euh, ministre de la santé et sociale ci liggéey bu ñuy sumb tey euh, di yaakaar mu antu fii ak ajuma ñu war a xayma doxalin boo xam ne réewum Sénégal daf cee bokk ci kuréel bi ñuy ooyee organisation mondiale de la santé mu di lan doxalin boobu mooy réewum Sénégal ci yan matuwaay la jaarale saxal dakk wér-gu-yaram fii ci biir Sénégal ci yan matuwaay la jaaralee liggéey bi nga xam ne boo demee ci frontière maanaam sooy waaj a génn Sénégal bu fekkee da ngay tukki waa wala sooy waaj a dugg si Sénégal bu fekkee dangaa ngaa jóge si beneen beneen réew nooy génnee Sénégal ak nooy dugg si te am nga am wér gu boo xam ne euh, baax na ci yow waaye baax na ci ñi ngay fekk si fii Sénégal wala baax na ci ñi ngay fekki fële euh, bitim réew euh, ñu koy oy ci tubaab règlement sanitaire international doxalin la lii lañu ñu war a def lii lañu ñu war a moytu nii la ñu war a defee lii ak lële réglement sanitaire international ndax règlement boobu ci mbirum wér-gu-yaram la madame le ministre de la santé euh, jox ñu ndigal ñu xayma fan la Sénégal tollu ci doxalin boobu euh, loolu nag euh, li koy yombal moo di ne xayma bi dañ koy teg ci waxtaan bu ñu yaatal moo tax ministère de la santé moo fi nekk ànd ak yeneen ministère gouvernement bi ñu leen di gërëm di leen sant ndax saa yu leen wooye ñu wuyu si ministère de l'environnement ministère de l'élevage ministère de l'eau et de euh, l'assainissement ministère de l'agriculture ministère des forces armées de l'intérieur ministère des finances ministère du commerce ak su ma doon lim ministères yi kon damay jël kayitu gouvernement bi ma liir leen ne bépp ministère wér-gu-yaramu doomu aadama dina gën am solo bu fekkee ne fu muy dund euh, gën naa sell dina gën am doole bu fekkee ne li muy lekk ak li muy naan gën naa euh, sell moo tax ñu ne na ñëpp jàpp euh, ni ñu koy doxale moo di ne euh, tëralin boobu du Sénégal donc moo koy moo koy doxal ndax dañoo ne sécurité sanitaire mondiale maanaam aar wér yaram ci biir àdduna si sëpp ku nekk tàmbalee fa nga dëkk ndax euh, loolu mooy suñu doole kon kayit bi nga xam ne moom nañu jëfandikoon ngir def xayma boobu Sénégal def ko bokk ak yeneen réew yi nga xam ne euh, ñoom ñoo ŋànk euh, organisation mondiale euh, de la santé buñ ko biñ ci biñ ci noppee nañ gis fan la ñu am doole ñun waa Sénégal ak itam fan la ñu war a yokk suñu loxo ak li ci gën am solo nan la ñuy yokkee suñu loxo ndax fi ñu toll ci 2024 gën a kawe bu soobee yàlla. déet du guleet ndaxte règlement sanitaire international bi nga xam ne adduna si taxawal na ko 1951 ba léegi boobu ak léegi kayit boobu. Euh, saa yu jamono soppeekoo kayit bi soppeeku dox ànd ak jamono euh, moo tax euh, gën gaa ne mën naa wax ne ci fukki at ak juróom yi ñu romb lii mooy yoon bu bees xëy na ñuy nataat suñu tolluwaay ci règlement sanitaire international nan lañ koy doxalee fii ci biir Sénégal ak règlement sanitaire international nan lañ koy doxalee suñuy frontière booy génn ak booy dugg si ak itam lan mooy suñu loxo ci fi nga xam ne réew ab adduna yi dañ fay daje Eh, ku nekk naan lii laa indaale ndax wér gu gën a sax ci biir àdduna si bu soobee yàlla. jàngat bi moo di ne ñu ngi sant yàlla eh, Covid fekk Sénégal am système de santé wax dëgg fa yàlla bu taxaw bu dëgër. Eh, fàttaliku leen ne bañ dawalee lu toll ni xëy na at wala bu teg ay weer tuuti dañoo ne Sénégal bokk na ci réew yi jiitu ci ñi gën a. am fayda ci tontu ak xeex bi ñu xeex jàngoro Covid maanaam gis nañ fa suñu bopp wax dëgg fa yàlla kon njàngat bi mooy lañ doon def euh, nañ ci nañ ko wéyal léegi nag njàngat bu ñaareel bi mooy lan lañ ciy yokk ndax mu gën a baax lan lañ ciy yokk ndax mu gën a dëgër ak lan lañ ciy yokk ba nga xam ne tey ñuy amee doole doole boobu na yàgg ndaxte euh, yéeg ba ci kaw xëy na mën na yomb waaye nga des lu yàgg ci kaw. te di liggéey li ñu la sant euh, bu fekkee ñun waa Kër dokteur wax dëgg bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy ñaan yàlla euh, ndax askan bi euh, mën ci jot. ñetteel bi moo di ne bilaay mboolo mooy doole ndax bi Covid ñëwee système de santé taxaw yeneen département ministériel ñëw ànd ak moom te loolu borom réew mi yombal ko ndax moom moo wootee réunion ba ne moom mooy jiitu ñëpp topp kon njàngat bi moo di ne. Euh, dund nañu waxtu yoo xam ne daf ñoo fàttali ne euh, ànd moo gën a baax ànd mooy may doole ànd mooy euh, gaaw a sotteel njëriñ ànd moo gën a wóor and boobu nag ñu def ko ci juboo ci waxtaan ak ci am jàmm suñu diggante.